bu ñu laajee yéen ki si gën a néewle mhm. kooku la ñuy jël mhm. mais à chaque fois jar baatu ko fa nekk mooy gagné na nekk maçon na nekk kii na dem rek régulariser wu am kii am neyaam ak registre de commerce am ñu dugalal ko mu am marché bi après mooy gagné te it marché boobu bu si boo si jotee ba pare mhm. xam nga un Ismaël ba ne day day day góorgóorlu nga jox ko marché vingt cinq millions mu war a fournir marché bi ba mu jeex ñu doog a toppaat nag si facture am tamit loolu nañ ko xoolaat. Mhm. waaw nañ ko xoolaat. Mhm. na am accompagnement bu ñu la joxee DRP ba pare. waaw waaw bu la joxee marché ba pare nan lay accompagner étape par étape. Mhm. parce que tamit sama classe bi ku leen jox xaalis yu bari ñu dem taxi ñaareel dem jënd oto commencé bu fekk ne. xaalis ba moom moo ko danga ko war a jëndee ay matériaux kon nan leen jox ci marché yi ba pare accompagner leen wan leen nan la ñuy gérer bu ko defee sa entrepreneur local yu ndaw ndawaan yi nan dem ba màgg nekk entrepreneur yu ndaw pourquoi pas li Maroc di négocier di ñëw di gañee pompier bii di ko tabax ay doom réew mi di ko tabax Macky Sall di négocier ñun ñuy gagné ji Maroc metti na la de moo négocier gagné fii yëpp di defar pompier moo gagné moo gagné chantier yëpp ñoom ñooy jël li si baax ñun ñooy jël dépense yóbbu te Alassane Seck nekk fi waaw c'est grave Euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax xam naa ni temps bi jeex na tàkk doyul euh, ndax euh, ouvrier yi tey ñoom moom plateau bi ndax wax naa leen émission kër gi la ñu wax kër gi nag bu ñu ko waxee batiment bi ci la bokk ba ci fii ma toog di di liggéey sax defe naa ni lii daf ci bokk. Mhm. ci wàllu batiment ñu waxtaanee ko ak jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel. Mhm. li ñuy jeexalee rek Alassane. Mhm. di la remercier bu baax a baax ci sa teewaay di remercier Kader mi nga xamante ni ma nga fële ca RDV. defe naa su ma juumul wala DTV. piloté lii ba ñu mën a am émission bi ne macha allah moom tamit yaakaar naa ni bokk ci seen kuréel gi. Mhm. Euh, fan ngeen jëm ak lan ngeen soxla. fi ñu jëm mooy. Hmm. Euh, ñun dañuy xalaat fii ak. ak itam ndax xalaat ngeen yéen ci li ngeen di amal seen bopp. Hmm. ngeen ubbi ci assurance. Hmm. ubbi ci loo xamante ni ëllëg dina leen mën a jàppale ba. accident de travail yi bu amee prise en charge bi mën a yomb. xam nga assurance bi assurance bi. waaw xëy na dina xaw a jafe. ndax euh, bu fekkee ouvrier bi nga jël tey. tey la romb ñëw ut si liggéey waaw tey la ko jamono jàpp mu ñëw ne jël ma journée waaw nga jël ko des fois sax doo jàpp turam feek ngoon waaw kooku nan nga koy kon li ngay def mooy yi tamit nañ ñu bàyyi xel ñun waa waa secteur bâtiment vraiment ñu ngi leen tàllal loxo assureur yi buñ ñu buñ ñu wanee mm. yoon ba xam ne mën nañ fi jaar pour assurer suñu ay ouvrier mm. ñun ñu jéem a ut pexe mm. di ko boole suñu ay contrat Bijou Ñaan maa ngi la ciy interpellé bu baax a baax a baax doomu pa jul de ñaan bu sonam assurance nañ ma baal publicité boobu euh, Bijou maa koy nuyu bu baax a baax di ko baax macha allah fa tabarakallah di nuyu képp koo xamante ni yaa nga fa euh, sunu yaay Fatoumata Kan itam yaay Bijou ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dëgëral assurance yi nañ leen tàllal loxo wan leen fan leen tàllal loxo wan ñu fan la jaar bu leen bëggoon tàllal loxo tey ji ban numéro lañ leen di euh, nañ ñu woo si si si si si numéro ba réer na ko. graaw sama numéro xanaa xëy na laay mujj joxe 77. <laughs> waaw 546 69 91. waaye numéro. 546. 69 69. 91 91 77. 546. 69. 91. waaw bu ñu mooy numéro bi nga xamante ni euh, waa assurance bu leen bëgg a loxo. Mhm. ak ku bëgg a bokk ci kuréel gi. Mhm. itam na leen mhm. su ko defee yëf gën a yaatu. bu yaatoo ba yaatu état mbooloo bañ. daf ko ragal mbooloo mi nar gën a yaatu. tàggool aywa ñu ngi tàggu jiital tàggoo gi suñu président Daouda Sarr. di ko ñaanal fa mu nekk lam fay doxi Linguère chantier yam fay doxi yàlla na sotteeg jàmm. ba mu mm. ñibbisiwaat mm-hmm. di ñaanal ñi ñu àndal Cheikh Mbacke Diouf suñu chargé de communication Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke Diouf dafa waroon a toog fii waaw moom moo waroon toog fii ma toog <laughs> nii ndax cëram laa doxee ndax mooy chargé de communication bi mm-hmm. ak El Hadj Malick Dieng El Hadj Malick Dieng mee toog mm-hmm. moom ak euh, Daouda Sarr président bi ñoo créé fédération bi di nuyu njaboot gi di nuyu suñu yaay di ñaanal ñëpp ñëpp Sénégal ak fédération bi léegi di yaat ouvrier yëpp nañ adhéré si fédération yi demee nii bañ mën a boole ouvrier yëpp ñu doxee benn kàddu mhm. dem assemblée ba palais lu ñu leen wax ñu defal ñu ko incha allah mm. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala mbooloo mooy doole te sànq lañ mm. euh, bu ñu booloo rek wat weer mhm. macha allah numéro baa ngi noonu joxe nañ ko pour euh, kuréelu maçon yi waaye ku leen bëgg a tàllal loxo itam jàppale leen ba ci wetu président de la république parce que yaakaar naa ni lii war na ko ñor ay doomi Maroc di ñëw di liggéey sunu dëkk te sunuy doomi réew nekk fi oh, jar naa xoolaat lan ngay tàggoo yow waaw xanaa may woo maçon képp ku liggéey ci bâtiment muy carreleur yi ferrailleur yi ak euh, électricien yi a peintre yi ñu adhéré ci cellule du secteur bâtiment parce que am nañ ay objectifs ak ay yu bëri yoo xam ne vraiment mm-hmm. Mm-hmm. intérêt euh, ouvrier yi la waaw euh, yéen seen numéro lan la yéen itam waaw ku ñu bëgg a jot da ngay woo ci 77 923 mm-hmm. waaw 68 87 923 68 87 77 923 68 87 teel ma taalif bi noonu euh, Hamama Fall ma koy dellu di ko jaale waa Mauritanie it waa 68 87 voilà waa validité ak waa Sœurs Unies yëpp euh, Oumou Diop maa koy nuyu bu baax a baax madame Kane Hamidou Babou euh, PA Gueye Michel ak Yacine ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaale waaye itam di delluwaat di nuyu bu baax euh, soxna Aminata Lo ñu gën ko xam ci soxna Ndeye Dieng Baye Fallou Serigne Adama Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziar mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen Ousmane mayal ma ko rek une minute benn taalif bu mu def ci maçon yi une minute rek ñu àndandoo tàggoo ko jaa ngeen jëf ay koo gis muy kër këri a mason mooy ki koy tabax lu tax mënul am taax wala day liggéey te yàlla tax baadoole yi jël xaalis bi te duñu taq réew mi li fi am du dëgg du yoon du dëgg du yoon dafa sax rax bàyyi ñiy liggéey di ñaq di fay ñuy wax waa Sabodola sax am na ñu leen waxal te or bi du fanaan du fanaan Sénégal déedéet dëkk bi yépp mason yi ñoo ko liggéey ku jaaxle ñu jox la xëy wàcc fay ñu bañ ne duñ leen fay mhm. kuy mason na nga fier yonent yàlla ibrahim yonent yàlla ismaïl def nañ mason ñoo tabax kaaba gi ku am kaaraange tëdd nelaw sa xel dal mason moo tax jërëjëf kuy sangu su am sutura maçon moo tax. jërëjëf kon leen jox seen wàll. Cheikh Tailleur maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax ma nga fële ci Yoff Apecsy moo def coupe bi macha allah 77 la 438 35 25 waaye tissu bi ma nga jógee ca Seydina Alioune Diop nekk fële ca marché Yoff macha allah ne ma daggal tabaski ji tissu yaa nga fa lépp nga fa kon waaxu leen ci moom te dem ci Cheikh Tailleur su ko defee rek mu defal leen lu mel nii Sadio Kouyaté maa ngi koy nuyu bu baax ak cousin mu Lamine mbokk yi jàmm ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu fi amaanillah jaa ngeen bonsoir chers amis téléspectateurs de la 2STV ñu ngi leen di nuyu yéen ko ci nekk ci touram ak santam di leen bégee di leen di kontaan ci seen teewlu ci émission bi ñuy wax high level di émission ba nga xamante ni euh, mu ngi am chaque semaine tous les mercredis di leen waxtaanal aussi di andi euh, ay waxtaan yu wér ci sénégalais bu mu mënti doon ak yëngu bu muy mënti yëngu ñu bëgg mu ñëw toog ñu waxtaane moom mooy kan fan la jaar ak lan la jot def ci réew mi comme ça génération bii di ñëw mën ci jàng et puis mën ci gis ak ay objectif am ñu partagé ko réew mi ba nga xamante ni ëllëg si biir euh, dina fekk ni wàcce woon nag ñun. donc tey ñu ngi dalal euh, ancien parlementaire Thierno Bocoum euh, di actuel président d'Agir ñu bëgg waxtaan ak moom ci réew mi ak dundam moom fan la jógee fan la soqi ko Thierno ñu ngi lay Euh, maa lay ziar bu baax euh, Fata di El Presidente. waaw dama ko si yokk quoi. <laughs> di euh, am mbégte lool ñëw si plateau bi jàkkaarlook sénégalais yi ñuy seetaan. merci ñu kontaan bu baax a baax si dalal Thierno fan nga soxe ko alors <laughs> ah. xaw ni tax question boobu mu doon une question difficile pour moi. parce que je suis du Sénégal noonu laa ko mën a tuddee. dëgg la waaw damay définir comme bawol bawol. Mhm. Euh, définir également comme Saalum Saalum je vais vous expliquer ak Kajoor Kajoor ak euh, waa Fuuta mhm. euh, maa ngi juddoo Kaolack mhm. maa ngi juddoo au Saalum muy Kaolack mais maa ngi màggee Diourbel ak Thiès en même temps tamit j'ai fait le tour du Sénégal parce que en réalité ki ma yar sama rakku sama magu papa Euh, donc il était administrateur civil dafa nekkoon ñu koy affecté un wow. partout uh-huh. donc ce qui fait que durant sama jeunesse yëpp dama ko passé partout au Sénégal mais tey euh, mun naa wax ne ne j'ai pratiquement les régions du, du, Sénégal maintenant bien entendu je suis alpulaar euh, soo ko déggee Fuuta mooy cosaan bi euh, en même temps également suñu sama maam mu ngi nekkoon à Diourbel nga xamante ne fa laa duggee école. Mhm. fa amee aussi bac bien que damaa dem ñëwaat. Euh, lycée Cheikh Amadou Bamba. donc voilà un peu. Euh, perturbé wul benn yoon sa jàng bien que nga doon déplacé wu itam. mais c' était très difficile. parce que parfois dañ doon nekk ba digg année scolaire ñu affecté ñu affectation génn. oui donc da ngay dem benn école boo xam ne par exemple je me rappelle ba ñu ñëwee Tiwaawoon. Mhm. bu ma nekkoon dañu doon def musique. waaw waaw man defuma woon musique avant donc il fallait mmh. s'adapter donc effectivement euh, jaxase day jaxase parfois lu bëree bëri si rythme bu ngay am si sa jàng mais alhamdulilah ça nous a pas empêché quand même ñu ñu ñu jàll suñuy examen comment comment tu en classe brillant mooy brillant euh, noo xalaate woon su bopp en oh, classe bon je dirais pas. bu ngeen doon bu ngeen dee trois élèves tout le temps yow da ngay jël deuxième wala troisième wala bu trois élèves <laughs> non en fait en fait mënuma wax ne ne j' étais j' étais brillant wax ne j' j' étais pas brillant mais mm-hmm. j' étais un élève boo xamante ne en tout cas qui faisait ce qu'il fallait pour passer en réalité. Mm-hmm. Euh, jàng dama koy faral di wax le plus souvent euh, li li su la intéressé dëgg-dëgg mun nga si def ay résultat mm-hmm. Parfois Euh, soo nekkee xale parfois du lay intéressé parfois am na yu bëri yoo xamante ne ne mm. da ngay cof rek da ngay ñëw mm. bu dernier minute sax devoir bi avant muy am ngay soog a xool wala laa veille ngay mm. jàng donc des trucs comme ça mm-hmm. mais soo demee ba maintenant ba commencé xam exactement si li nga bëgg mais mm-hmm. écoute loo yootu rek def si sérieux bu war da mm-hmm. ngay gis résultat yi mais yàlla dimbali nañu que vraiment ñu ñu def ay études supérieures et tout ça voilà. fan fan par exemple lan nga jàng bi nga amee bac ban bac nga am et puis fan nga continuer say say. waaw on a envie de connaître Thierno boobu. xam nga <laughs> waaw man ba ma ba amee bac. <laughs> Euh. Euh, dama def droit. Mhm. fii Sénégal. Mhm. j'ai fait loolu moo njëkk a nekk sama. sama mhm. je suis juriste de formation. Euh, donc dem naa ba am benn diplôme. boo xamante ne tey ñu ngi wax master 2. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. euh, diplôme d'étude euh, mm-hmm. boo xamante ne en science de gestion la ak droit des affaires internationales. après yamuma si loolu j'ai fait de la communication parce que communication dafa ma neexoon dafa musoon neex. et je suis allé je suis allé m'inscrire Euh, man ma jàng ba am diplôme aussi bu kawee bu moom la ñuy wax DES euh, diplôme d'études supérieures en communication. donc boobu tamit jàng naa ko. Mmh, en j'ai fait de la diplomatie diplomatie et stratégie bon fii ma lay wax ak yow actuellement. Mmh. maa ngi def thèse maa ngi def doctorat. moo mmh. xamante ne ne dama ko jëmale si si diplomatie et stratégie. boo xam ne aussi dama ko dama ko jàng boo def naa aussi droit droit parlementaire. donc hmm. euh, loolu yëpp tamit si parfois nit ki la. man je si du genre boo xam ne dama gëm ne. Euh, dëkk pour nga gën si nekk c'est-à-dire que li ngay yëngu surtout lu may yëngu nii si politique il faut hmm. une connaissance transversale il faut pas seulement que nga am benn domaine rek boo xam ne si nga xam dara hmm. il faut nga gëstu yeneen domaine yépp moo tax lu ma mën si gëstu si ay domaine mhm. ba am si ay lijaasa dama ko doon def boo léegi nag j'arrête un peu euh, mhm. thèse bi laa war a dóor si si si laa nekk mais je pense que jàng bi moom arrêté nañ ko léegi macha allah loolu am na solo yaa ngi ci biir high level di déglu euh, donc je pense que loolu itam am na solo ngay nekk ci dara di ci yëngu di jàngaale di mhm. jàngale en même temps loolu euh, day tax itam yebel bi du bëri quoi comme on dit <laughs> am na solo mais en même temps Euh, yan rapport nga am ak sa ay parent ñuy dund waaw sama sama papa nag dafa dafa jóge na fi hmm, ah, ñu koy ñaanal yàlla hmm. waaw mu yërëm ko xare ko àjjana hmm. sama yaay mu ngi mu ngi dund mu ngi si jàmm ñeen rapport ngeen mu ngi mu ngi à Thiès non ah. rapport yu yu bien xam nga euh, moom laa la expliqué sànq ma ne la euh, moom actuellement par exemple su may dem seeti ko Thiès laay dem donc mu ngi à Thiès actuellement. Euh, rapport yu diggante waajur ak doomam. maanaam suñu sëriñ la. dañ ah, jàpp nañ ne sa yaay sa sëriñ la. donc euh, parfois il nous sax ñu jékki-jékki rek taal oto bi dem Thiès taalal mhm. suñu loxo rek pour mu ñaanal ñu. Euh, donc rapport de complicité. Mhm. parce que sama yaay dafa yàlla dafa def ne. Mhm. yàgg na si ONG yi et tout ça. donc si affaire débat yu jëm sur les femmes euh, sur la le le le le secteur des paysans et tout ça. donc yooyu def si doon yoo xamante ne ne daf si un peu nekk voilà. Okay. donc du coup. dañuy am débat intellectuellement ak moom. Euh, parfois je suis pas d'accord ñu parfois ñu am ay. Euh, ma leen non ngeen bëgg a imposer nit ñi. war nañ ko voilà comme ça donc débat la yoo xamante ne ne mhm. c'est c'est intéressant on a une relation de complicité. Euh, par rapport à tes amis d'enfance vous êtes toujours ensemble wala vous êtes perdu de vue wala est-ce que tu as eu de même la chance d'avoir des amis d'enfance vu que da doon bouger lu bëri. oui euh, lu ma doon lu ma doon bouger yëpp nag ñëpp xamee nañ sama benn xarit boo xamante mhm. maa ngi koy nuyu. mu mhm. ngi n mu ngi nekk France actuellement. bon mu mu ngi aussi au Mali parce foofu lay liggéeyee mais famille mu ngi France. Mhm. Euh, yàlla def na sama tuddee naa ko doom tuddee na ma doom. Euh, à chaque fois su ma demee Paris këram laay nekk donc kooku ñëpp xamee nañ ma ko c'est un c'est un ami d'enfance. Mhm. sama mbokk la aussi en même temps mais. Euh, ñëpp xam nañ ne c'est une relation boo xam ne dañ ko garder ba fii nii mhm. soo ko nekkat mooy sa xarit ñëpp xam nañ ne Thierno la man mu waxee koy sa xarit ñëpp xam nañ ne moom la. macha allah loolu am na solo yaa ngi ci biir high level di seetaan Thierno Bocoum ñu ngi dem ñëwaat. bonsoir chers amis téléspectateurs pour yéen ñi ñuy dab ci high level ñu ngi tey dalal Thierno bokkum euh, muy président Agir ñu bëgg waxtaan ak moom ci ci ci lifestyle am loolu la ñu mën a wax quoi donc euh, ci dundam dundinam ak ni mu amee espoir yi mu am ak envie yi mu am ak réew mi Thierno. ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax si dalal la ci high level. Mm-hmm. Eh, naka la nga nga adapté sa dund ak politique ak sa engagement politique naka nga xalaatee ni woon benn moment da nga war a da war am ay engagement si si réew mi qu'est-ce lan moo la lan moo la si neex lan moo la naqari woon wala da nga xalaat ni yow ci une personne faite pour la politique. Mm-hmm. non xam nga. Euh, mm-hmm. man politique dama si comme ni ko bëri di waxee de dama si dugg par effraction. Hmm. du ma si dugg boo xamante ne ne dama jug ne damay defi politique. ok parce que ba may euh, ba ma ba ma ba ma paree sama sama jàng commencé liggéey un peu. Hmm. Euh, boobu sax d'ailleurs j'étais encore très jeune maa ngi nekkoon si benn cabinet d'avocat. Hmm. après euh, si laa commencé woon un peu comme j'étais très intéressé par le droit et tout ça. mu amoon lu ñuy wax. Euh, chantier de Thiès yi xaw ndax ñu bëri. oui bien mm-hmm. alors loolu ba mu amee euh, ñu am accusation yu ñu tegoon l' ancien premier ministre. Euh, mm-hmm. ba woon Idrissa Seck. Mm-hmm. si chantier de Thiès yi alors que bon man comme juriste laa woon juriste laa du moins. oui xam luy finance publique et tout ça ma ne mais nan la ñu mën a accuser un premier ministre. boo xamante ne ne. nekkul ordinateur des dépenses. nekkul administrateur de crédit crédits. Euh, yorewul xaalis si un projet de l'État bi nga xamante ne dafay jaar asa euh, euh, conseil des ministre ñu yóbbu assemblée nationale extra mm-hmm. donc du coup je mais loolu mënul nekk quoi alors je me rends compte que on peut utiliser les institutions de l'État pour combattre ay adversaires politiques ak yooyu mm-hmm. donc je dis ça c'est une injustice mm-hmm. waruñu ko bàyyi mu jàll noonu laa bokkee si ñi ko doon soutenir période boobu. d'accord soutien nag très actif. boo xamante ne demoon naa ba créer jeunesse. Euh, pour la défence de Idi et cetera. Euh, mhm. nekk ci terrain bi. Euh, mhm. de manifeste affaire yi. Mhm. donc après yàlla def ba mu génnee kaso. ñu gisee. ci saa si mu ne ma moom dafa bëggoon sax ma ñëw commencer liggéey ak moom surtout si lu muy def boobu créé gu ñu woon parti. après ñu commencé ma koy may liggéey ak moom di ko jàppale si yenn yi. mais pour man c'est juste technique. voilà léegi nag ñu créé parti bi. Euh, mu jox ma ay responsabilité si biir parti bi ma nekk si secrétariat national bi bokkoon si ñu gënoon nekk xale. Mhm. Euh, après finalement de fil en aiguille ma nekkate man maa ngi si biir politique bi je n'en sais rien du tout carrément. après euh, je fus le responsable des jeunes mu am. 23 euh, juin. Oui, oui. comme ni nga ko xamee maa nekkoon responsable des jeunes du du parti réew Oui. donc ñu bokkoon suñu téewoon combat bi di ko xeex. Mhm. ñu dugaloon ñu kaso et tout ça. Mhm, donc mhm, du coup on a été comme ça dans la politique. et puis au fur et à ngay ngay avancé ngay rendre compte que y a des de sa battre. parce damay faral di wax sama gars yi toujours maa leen. soo génnee si mbedd mi gis ñaari nit ñuy xeex ku si ne ak comportement bi nga siy am. am na ñoo xamante ne dañuy romb dem. am na ñoo xam ne dañuy àtte am na ñoo xam ne sax dañuy sot dañuy xool ku gën a néew doole ñu sotal ko. dëgg la alors donc question de tempérament la. Mm-hmm. benn moment tu te dis que ne mënuma nekk si réew. gis mm-hmm. yenn yi di am may def comme si rien jàll sama yoon quoi. Euh, j'ai envie. Mhm. Euh, engagé wu en tant que acteur politique. Mhm. Euh, nekk une force de proposition parce que nag sooy critiquer day fekk aussi yow nga am lan looy teg en place. Mhm. mais aussi nga am courage dénoncer loo xam ne dañ ko war a dénoncer. moo tax politique noonu laa si noonu laa si duggee bi finalement je suis un homme politique je suis un acteur politique. man damay remarqué bu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñuy waxee politique d'habitude Euh, ku nekk approche bi muy am ci biir euh, kii bi day wane imp day joxe impression wu euh, injuste la doon lay bay lay bañ mm-hmm. mais j'estime que aussi nit ñu bëri nit ñi wute nañ donc am na ñoo xamante ni bu ñu koy wax dafa nekk dëgg mais tout tout le monde prétend être véridique de façon mm-hmm. euh, mais politique nekk liggéey boo xamante ni tamit métier la bu doy waar parce que daf la daf lay obligé ngay changer selon ni atmosphère di demee quoi ah loolu doy waar si nit bu war a tenir ay discours yu xaw a yu gars yi di xaar tout le temps pour mu war a nekk yu yu constant non. non la politique ne t'oblige rien du tout. ok donc moom daal game la bu anytime mën nga def lu la neex. non non non obligé wu la. Mhm. ngay ngay def ay changement wala di def loo xamante ne méngoowul ak loo gëm ça ne t'oblige rien du tout. ok gis nga. Euh, politique ak dund bu ngay dund c'est la même chose. Mhm. question d'échelon la. Mhm. fan nga taxawee sooy def politique da ngay taxaw ci échelon bu gën a élevé ci engagement loolu laay wax samay xarit yoo xam dañ nekk ah, ah, au delà taxaw bon peut-être mun nañ mhm. nekk activiste comme mun nañ nekk société civile bi. ma ne leen mun ngeen kaas mun ngeen wax mun ngeen ne c'est pas normal mais doo leen décider ku décider mooy ku ñuy wóolu pour muy décider mooy ku dem laaj. kooku mooy décider. Mm-hmm. mooy président de la république bi nga xamante ne moom la jox ndombo tànk mu mun a taxaw am ay prérogatives mooy maire bi bu nga xamante ne moom it mun na décider et cetera donc pour impulser def loo xamante ne day am day day day day jaar ci population yi il faut nga def politique il faut nga nekk au niveau des sphères de décision il faut ngay mën a mm-hmm. décider. Mm-hmm. dëgg la mais façon bi ñu koy defee yow yaa koy tànn. dëgg kenn du la ko tànnal parce façon bu